ci man euh, nee na damay rafetlu bu eh, opinion bu simple mooy la daal qu'est-ce que tu attends que justement lan moo tax nga ne du opinion euh, may ma rek ma a wax d'abord mooy euh, yow moom la ñuy yow te doo ko yow yow mi nga xamante ni tu yow kenn du la waaw heureusement qu'aujourd'hui tu as parlé des commissariats man xaw ma da nga wax si yaa ngi koy rafetlu. Mm-hmm. c'est ça la question que les gens se posent. et c'est la première fois et parce que xamal nañu ne parfois day wax am. d'accord. nga naan oh, yow yow yow yow position man Omar Faye si am position wax ko man. nañ dem ba élection locale on va voir ce qui va se il y aura un contentieux boo xamante ni nit ñi ko gis ci réew mi. d'accord waaw demal waaw d'accord. merci beaucoup soxna Nene Aïcha d' abord man damay déparé ci euh, vraiment les li nga xam ne moom la Omar fay wax si ñi ñi woo ñuy dem wuy ji justice xam nga nag il faut ñu respectante ñun sénégalais yi parce que c' est pas la première fois ñu woo un politicien mu war a dem wuy ji justice parce que bu ñu waxalee yàlla ñun Sénégal ñoo baaxoo même bu dul ab politicien ku ñu woo tribunal wala ñu woo la police say mbokk ànd ak yow loolu moo fi am même ak kër bu ñaar nit xeexee bu ñuy dem waa kër ku ci nekk ki nga àndal bu ñu leen convoqué police da ngay ànd ak ki nga faral. gunge da nga koy gunge ñun Sénégal loolu lañ xam. politicien nag li ciy wute rek mooy daa am dayo maanaam moom dootul yem ci kër gi waa penc ma ak waa gox ba ñooy ànd ak moom. mbooloo bee koy jóge ma yokk. et c'est pas la première fois. c'est pas la première fois. les contextes ne sont pas les mêmes. non may ma rek ma ñëw. non ban contexte ban contexte ban contexte. waaw kii dafa def appel. kan. kii wala appel non non may ma ma rek ma ñëw may ma ah, rek Omar Omar Faye. waaw les contacts sont pas les mêmes de. Omar Omar ce qui s'est passé avec Macky Sall ak Sonko Omar Omar. Ah. Omar il faut nga déglu ma au moins. Eh, quand même allez-y ah mën nga ma déglu. d'accord allez-y voilà parce que dañ la déglu aussi. waaw ah. <laughs> waaw donc. lii lii dëgg. mooy. fii kun fi mos a woo. à commencer par. le président Abdoulaye Wade bi nga xam ne moom la régime socialiste daan tëjëk a tijji booba ñun ñu ngi nekk ay étudiants faawoon Abdoulaye Wade fu ñu ko mas a woowee ku ci nekk université boo mën a jànge booba ñaari université yu mag fi am muy université bu Ndar ak bu Dakar dañ daan jógee université ba université ñëw taxaw fii mu jaar avenue Cheikh Anta bi ñuy bañ tey ay opposant jaar fa mu jaar avenue Cheikh Anta Diop e- yi bàbbeeku ànd ak moom Abdou Diouf toog ca bureau di ko muñ di ko muñ Abdoulaye di yegg si 16 heures ci palais de justice mu koy muñ gis nga nit booy jiite réew dangay ànd ak dal mais bu may wujjeeg yow ci réew maa yore nguur gi yow boo ñëwee dama lay nappaaje kooku jaay doole la Barthélemy def fi lu kenn deful beneen opposant def fi lu ñu deful Macky Sall mii tey bi ko Abdoulaye de jaay doole ay nitam ñama xam waxuma nag ñi nga xam ni ay second couteau lañ wala dernier moment yi lañ ñëw ànd moom mais man ñi ma xam ci APR ña àndoon moom dañ koo gunge te mën naa caalim à l'époque ay ay ay Moustapha Diakhaté. moi j'étais là-bas. voilà tu étais ñu ànd moom gunge ko. pourquoi parce que. maa ngi fa woon kay. man kii xaw ma ko déggul ma man man non sama xam nekkul ci moom ba ñuy bind mën naa ko mën naa nga ma def noonu nga ma def noonu nga ma def noonu may déglu non non non noonu nga ma def non kii non di nga ma déglu parce que noonu nga ma def affaire ba ñuy bind ay statut maa ngi toog kaas ba fenn ma jox information man fàtte woon naa boo buggee ma wax la kan ak kan fa toog di bind non non non noonu nga ma def may ko mu yeggali s'il te plaît ne mi ngi ci débat. waaw baax na waaw man sérieusement man li may wax je parlais de. ma ne xamoo ma man xam ma jàpp non sérieusement sama xel sax ci moom yàlla xam na yàlla xam na parce que man la kii man su may wax. damay raisonner par rapport à des paradigmes quoi. mais ma tapé dans les plus grandes universités nga gis ma ko boo ma xoolal xoolal d'accord waaw non il faut respecter les gens. s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît xoolal dama ne bu dee bu dee bu dee yéen lii ngeen am. ñaar s'il te plaît bu dee lii ngeen am. bu dee lii ngeen am mais c'est normal c'est normal ñu leen di mën mën a sur les plateaux. mooy am ngeen xam-xam bu dee lii ngeen xam bu dee lii lii nga mën mais yow ñu lay seetaan ñu ngi rus. ñaar s'il te plaît mais gis nga xoolal sëñ bi dafa jàngi da ngay jàngi wuti xam-xam. bu ko defee boo nekkee débat yi nekk à l'aise. da ngay jàngi wuti xam-xam ci lay dam dam non non dam dam du ñu yóbbu ko réglewul dara dama ne dangay dem jàngi wuti xam-xam mais réewande réglewul dara te réew mi gi ngay non dam dugguñu foofu quand même waaw d'accord mais yégali rek on va pas entrer dans ces détails s'il vous plaît man ci fàttewu na d'accord yégali sa parce que moom bi ñu commencé ba léegi ñii seetaan xam nañu waxaguñ fi lu ñu mën a jàpp non non yow yaa fi wax lu nit ñi xam yow yaa fi wax lu nit ñi xam donc léegi maintenant pour revenir dam man man ak yow bokkuñu sax man ak yow bokkuñu sax que nous avons entamé un débat sérieux parce que ñu ñuy seetaan dañoo bëgg a xam sa phénomène de ah, violence. ak li xew Sénégal lan moo ko waral ku nekk ñu wax sa position. teg ko ci xam-xam parce que mbir mi du ay wax di sànni danga koy teg ci xam-xam. teg ko ci jaar-jaar donc fi ñu fi ñu déparé mooy ñuy leeral ni fii opposition yi nga xam ne ñoo fi mos a am. dañ daan fi fekk nguur goo xam ne bu ñu leen woowee ñu ànd ak seen i nit ñu muñal leen ko sa Seck maa ngi fàttale ko bi ñu koy woo en 2007. Mm. dafa déparé point e taxaw ca balcon deux 2005 taxaw ca balcon taalal ay loxoom daan maa ngi nii dara jotumu ci suuf fees del mu depare këram topp avenue Cheikh Anta Diop mu fees del presse bi yëpp ànd ak moom partisan bi yëpp ànd ak moom nguur nguuru Abdoulaye Wade di ko muñ ñu koy xaar muy ne muy oto bi dawul muy dox ñu koy xaar amul benn violence ba mu yegg au tribunal kon lu fi bees mooy njiit lu bees li nu am te mënta muñ kujje nguur gu bees gii fi ne mënuñu muñ kujje c'est-à-dire que ñoom li nu jàpp mooy lépp nañ def jaay doole gis nga nag dëkk bi bu ñu bëggee jàmm am fi dañuy waxante dëgg jàmm day lalu ci dëgg Omar fay loolu ngay wax du loolu mooy indi jàmm ci dëkk bi xam nga luy indi jàmm ci dëkk bi mooy ñu teg lépp ci yoon. mais ci euh, euh, euh, charte de non violence. voilà par rapport ak bi. Mhm. xam nga nit. buy wax dañuy wax rek te yàlla tax parce que man damay ku rek de de euh, ci ci ci lu récent rek muy 2011 avant Macky Sall di jël nguur gi les xamal nga même contexte bi amoon 2011 moo ñëwaat 2011 dan la woon dañoo nekkoon ci contexte préélectoral 2010 déjà ñuy dem ñun ñëpp di dajaloo à la euh, à la place de l'obélisque booba Macky mii tey yenn saa sax daan na indaale mer gàddoom ànd ak ay ñu ko ñu ànd ak moom ci politique. ñoom alluntine yooyu ngay wax daan ñoo ñu ñu ñuy ànd di mobiliser di xeex contre ñuy laalaat suñu constitution di xeex contre le ticket présidentiel di wax ni nguurug Abdoulaye ci jaay doole la nekk ñuy xeex ba fukki nit ak ñett dee ci à l'heure bilan avant ñuy dem ci élection 2012 yi mais pourtant ñooñu ngay wax foo xaanee ko woon ci réew mi est-ce que booba gëm nga yow ne bu ñu génne woon ab charte de non violence parce que boobu Abdoulaye mu ngi jaay doole jël le commissaire Arona Sy muy ñëw di fekk nit ñi foofa di dóor nit ñi à la place de l'obélisque teg seen i di jël camion bi nga si day sotti ndox mu tàng di ko sotti nii. est-ce que loolu lañ bëgg non may ma rek dama lay expliquer d'abord il faut ñu xam li fi xewoon d'abord est-ce que moment boobu signé woon nañ ab charte de non violence ni Macky Sall kaay yow comme Ablaye Wade mi ngi lay jaay doole te bëgguñ bëgguñu euh, xeex am ci dëkk bi kaay si ñeen ñu pacte de non violence est ce que defoon nañ ko ñoom ñi ñoom ñi ñoom ñii di wax tey est ce que waxoon nañ ko feu Ousmane Tanor Dieng est ce que waxoon nañ ko Moustapha Niasse kenn génnew foon pacte de non violence xam nga booba lu ñu doon wax dañ doon wax ne bu kenn laal suñu constitution bu kenn jalgati euh, réew mi ku nekk am nga droit marche nañu bàyyi nit ñu marche aujourd'hui ñu nekk ci réew moo xam ni constitution Sénégal moo ne la bu la neexee nga bind yëg ni da ngaa bëgg a marche c'est-à-dire une déclaration pour yëg da ngaa marche léegi boo demee def sa déclaration da ngaa war a def sitting wala da nga def war a war a def marche ñu dem jëli arsenalu policier ak gendarme teg ko ci mbedd mel ni Sénégal dafa nekk ci guerre alors que bu ñu ko encadré nga marche sa marche ci jàmm ak salaam amul benn marche bu ñu fi mos autorisé boo xam am na coow ci Sénégal amul nañ ma jox benn bu dee am na benn marche bu ñu fi mos a boo xam ni xeex am na ca wala sànni xeex am na ca musta am mm. dañuy marche ba pare for këyit yaag mbuusi ndox yéen fa andi woon def ko ci ay saako dem déposé ko ci mbalit mi ñëpp joxante loxo ku ci nekk def sa discours ku nekk ñibbi këram yi fi coow am yëpp. ci nguuru président Macky Sall même ci nguuru Abdoulaye mooy jaay doole nit ñi ne dañuy marché nga ne duñ fi marché wala dañuy siti nga ne duñ fi siti nga kon lii dëgg mooy. bu ñu tel constitution moo la may droit nga def ko ñu ñëw tere la ko kon ñu ngi lay ñu ngi exercer une violence ci sa kaw. beneen mooy boo bëggee jàmm. jàmm day lalu ci dëgg. mais fekkente ne yow comme ne ma ko waxee démb ci suñ conférence de presse bi ma ne li xew Sénégal dafa yéeme Omar fay li muy wax mooy léegi nan ko signé rek mais du tee violence dana am parce que toujours nit ñi dañuy jàppante mais loolu naa naafeq la nit booy def da ngay def loo xam dana jur njariñ waaye nañ bind ab charte def ca loo xam taxul jàmm am nit ña dem signé ko ci bu ñu demee buñ demee ba ci ëllëg ñu ne non pourtant woon nañ ko comme ni mu ko waxee mais teewul politique day ànd ak ay xëccoo donc ay jafe-jafe xam nga liy dëgg mooy liy mën a andi jàmm lan war a wax xam nga lan mooy andi jàmm. Mm. mooy buñ nekkee ci penc mi di xëccoo xëccoo dana am coow mais bu ñu ku nekk respecté la nga war a def rek jàmm am. première chose mooy que ne aujourd'hui dañoo war dem ci élection yoo xam lépp day jaar yoon. Mm-hmm. nan nga mën a comprendre comme ni ko waxee yaay nga sa bopp sànq parce que nee nga préfet yi. pour la première fois ñoo mag euh, sunu euh, sunu ñu ñu ñuy dem di di di di di xëccoo ji di def ay recours di dem en cour de cassation pour la première fois ci nguru kan ci nguuru président Macky Sall parce que moom mënul nangu parce que une administration moom moo koy instrumentaliser ministre de l'intérieur ni leen dem leen def ay recours alors que préfet yi loolu seen rôle ñoom def nañ seen liggéey.